waaye am yàlla na ko muurloo di barke sidna Muhammad yàlla na yàlla dimbali xale yi toll ci liggéey war a tekki yàlla jox leen liggéey yu barkeel ñi nga xale yi toll ci njàngit yàlla gunge leen ci seenum njàng ba la ciy séntu yàlla defal leen ci lu kawe seen yoon ñu defar seen àdduna defar seen alaxira dimbali seen i wéyjur dimbali seen i bokk dimbali seen réew euh, te mu doon leen di dëgëral ci seen i ak seen diine ci barke sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla Euh, jubal suñu njiit moo xam ñi jiite diine ji wala ñi jiite pénc bi yàlla def ñoom jub maandu ragal yàlla ak yërmande ci askan wi ñu ànd ngir jariñ askan wi bañ a kompaloo ngir jariñoo askan wi yàlla na yàlla euh, dimbali yu ba jàngoro jii ci réew mi lépp lu ci waaye lal ci ay pexe pexe yooyu yàlla ko yàlla nasaxal lépp lu ci waaye lal ci lu mën a yàqal nit loolu yàlla ko yàlla nasaxal ko koy fexe it yàlla na ko yàlla jaaxal ba dootu ko tal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla yërëmal ñu suñu way dawlu yéegale ca barsax Seydina Muhammad boole leen ma annabiyiina wa siddiqiin wa shuhadaa allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna baadahum yàlla na seen bàmmeel li doon xaarukaay ajana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sàmmali suñu diine suñu ngor ak suñu bokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam àllaaxira ah, ñu nekkoon ci benn bee doon wax ci wàllu sëy euh, ni mu amee solo ak li nga xam ne noonu la ñaari way dencanti war a góorgóorlu waaye ñu wax ba tey génn gu ñu sujet bi ñu wax ci benk ñenk yi nekk ci sëy yàlla moo defar nit moo xam nit ñaari nit ñu bokkul fu ñu leen yare bokkuñu ñu leen jur ñu xëy bëgg a dund fokk yenn saa yi maanaam conflit de personnalité di am mu ñàkk waaw moo tax sëy njaal benn nga fusionnement de personnalité la maanaam ñaari personnalité yu bokkul bëgg dund ensemble il faut que heurte heurte di am loolu nag l'islam prévoir na ay solution pour benk ñenke yooyu war a dugg ci biir sëy duñ koy gérer ba duñu tabbi ci li yàlla façon li ñu seddaloon yàlla fas ko ñu koy fecc ci jaaxal parce que yàlla dafa ni abhadul xalaali ila allahi al talaq yàlla nee na li ma maye ba pare te bañ bu ko def nee mooy baatu fecc sëy nee na dama ko maye ba pare mais bëgguma ku ko def parce que conséquences yi mu a jur dafa bari moo tax yàlla ni li ma gën a bañ te autorisé ko ba pare nee mooy fecc am sëy bala ko nit a def rek na na dëkk mal nécessaire xam ni li nga xam ni moom lañ doon daw ci am gi maanaam ñàkkee def dina jur lu ko raw ah, boobaa nag moo na ko mën a def te na jaar ci procédure yu ko yàlla jaaroo moo tax mu ni xam nga tey yàlla li tax mu jël baatu fase jox ko góor loolu looloo yow ni bëggul mu gaaw parce que dafa jàpp ni góor dafa am sago moo tax góor yi léegi xam naa ni bis bu leen yàlla jàppee dina garaw ñaari baat rek nga di baat fay sa daal parce que yàlla dafa jàpp ne yow góor yaa ëpp dignité yaa ëpp dal yaa ëpp sago moo tax mu teg ko ci sa loxo waaw mais bu ko neexoon jigéen jigéen moom yaakaar ne bu meree rek daa war a génn ci sëy bi loolu moom nature jigéen la donc loolu yàlla xam du mu xam loolu moo tax mu teg ko ci moo tax mu ni Euh, bépp jigéen bu laaj jëkkëram baat te teg ko ci àqu diine balaa ko lu ko diine may nee na du xetu saf ak àjjana du ko xëy bépp jigéen bu laaj ñaan baat te tegu ko ci àqu diine nee na jigéen jooju bu sëy ba tasee jigéen jooju àjjana du ko xëy donc yooyu yàlla buñ ci aw ah, buñ ci yonent bi avertir bu ñu xam ni yàlla bëggul lool na doon mal nécessaire moo tax nag benk ñenk yooyu yàlla moo ko lijjanti ci alquran waaw wallaati taxaafuuna nushuuzahunna yàlla moo ni soo demee ba sa soxla parce que am na ñaari cas yëpp la yàlla lijjanti bu jigéen bi ak bu góor gi léegi ñu ñëw ci bu jigéen bu bi nee na yow góor yow mi dem ba xool ni sa soxna mi ngi indi bekk ñenki nee na faay suufun na li ngay njëkk a def bul xalaat tekku sëy bi de déedéet nee na fa'izuhunna waaraw ma ko waaral mu ndaw si waaz nag dafa am ay noo koy defee maanaam waaz képp koo koy defal fexeel ba mu gëm ni yow yéene ko ko jàmm loolu lay tax waaz bi mën a jàll moo tax sa soxna su defee lu la naqari loo mer mer wannal sa sa mer bu mu ni mer fekkee ne mer di wax rek defatoo waaz li la yàlla sant defoo yàlla nee na sa mer jéemal sax wan ko ni meruma bien que yaa ngi mer mais jéem ko ko wan ay at di ko may di waxtaan ak moom di kaf moom ba mu gëm ni sax wéru nee na bu ko yedd ci ëtt ndax bu boobaa du du waas toog leen wéet góor kenn du ko yedd ci mbooloo ngeen wéet yéen ñaar nga ni ko diw nga ni ko wax dëgg yàlla am naa yaakaar ci yow lool waaye nag nangam bi wax dëgg yàlla loolu de mooy sama problème ak yow soo ko bàyyi woon de yow kenn du la gën ci jigéen waaye loolu mooy waas loolu la yàlla wax waaye bu fekkee def loolu naqari nga ko yow su ma yëgul du ma ci dugg yow yaa yaa yées ci jigéen acca mooy buy pare booy pare mu yëkkati waaw te sa nga waxante lu ñaaw lu jigéen ba naka wax lu ñaaw bu ko defee léegi dina la xam yow du togg mënu muñ nga daal tax loolu la yàlla tere yàlla nee na yow góor tegam yaa ëpp sago yow laay jëkk a waxal wallaati taxaafuuna nusuuzahunna fa'izuuhunna waaral ma ko donc ñu xam ñu étape bi jëkk ci sëy mooy góor nay waar jigéen ci réew mu gis ni maanaam yii ay bekk ñekk la waar nag dafa am yoon yàlla nu yàlla jubal suñu jigéen salaamaaleykum wa rahmatullah Al Haïbou TV waaw Al Haïbou TV la meilleure chaîne YouTube du Sénégal vous donne des informations à temps réel. Actualité, politique, religion, sport et divertissement. Waouh Aimez, abonnez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Al TV la télé qui te pousse à réfléchir télé bi moo lay xalaat loo